boobu ngeen gis ci digg géew bi mooy combat spécial bi dox ci diggante Batousta xale bi nga xam ne moo jóge Pikine te soq di solo fi nga xam ne mooy Ocass war a dajoo ak Valdo Valdo nag ku ko xam-xam ko ci Fass ku ko xam-xam ko ci ninki nanka buur kan moo ñu dajale fii muy Moussa Diama Mbaye le grand champion Jolof Production tëgg li nga xam ne mooy drapeau Ibou Bambara ñaari xale yaa ngi noonu ci diggante géew bi muy ki nga xam ne mooy Batousta mi ngi doon di samp tànk bi buur ñi ngi leewtoo ñoom ñaar buur la voix du salum lan nga wax ci digënté ñaari xalé yi. Jimane maa ngi lay ziar di la niw di niw waa suñu info lambu ji rëy la nii Batista ak Valdo ay ji la lambu sa bu Pikine bu ñëwee di ngëmbo fele na nga xamante ne mooy Ocass war a Valdo bu nink nank tay ji ji man ay ji la lambu kiñ ñu daan maa la yërëm. waaw ñaari xalé yu yegg lañu parce que ñom ñaar ñepp mbëri mbapat lañu parce que seetaan na leen ay mbapat légui nak ci xex bi nga xamne mom lañu la ñu attention attention. ah Batousta bëgg naa jeexal lamb ji attention Batousta xale bi ngay bëre dafa mën bëre attention. bon eh, doole doxul jàmm. daan na ko. doole doxul jàmm. moot la def doon si suuf. allahu akbar. abonné leen ci seen site Sine Saloum Info ngir ngeen am xibaar yi leer te wóor.